thing. man franchement bu sénégalais yi bëggul bëggee bëggee xam lu leer ci ci ci ci ni ñu saytoo seen alal bëgg tamit ku leen ko sàmmal ba lool dootu fi mën a am wala ku ko def yoon dal sa kaw mais nañ nañ nañ ma essayé xool parce comprendre man dama Euh, Pierre-Edouard man je je viens de milieu très difficile dama xam fan la jogué ak fan la jaar Té fi ma jaar am ño ñoo xamante ne chance jaar fofu. xëy chance bi ma amoon sax fekk école publique bu baax ñom amatuñ ko té amuñu les moyens dem donc man xam naa ñooñu lu ñuy dund. Motax suma su des fonctionnaires di laaj xaalis ju bari pour compromettre les intérêts du du trésor public man j'en souffre su ma ay nit loubal buñ ko gisul sax ñu mëna wax mais nous gis ko ñëpp xam ko les organes de contrôle sont faits pour ça mm-hmm. la justice elle est faite pour ça Nous ne rek pas parce qu'un président de la république dara du leen ci fekk waaye ku def lu tolluwul voilà wala sax boo deful fait, ci ko jegi moom lu ne mën nañ ko teg sa kaw réew mënul il faut que ce pays là redevienne sérieux il faut que ce pays redevienne sérieux sinon on continuera à vivre les mêmes problèmes joxaat ko suñuy dom seen doom yi joxaat ko seen sët aduna xaaruñu le monde ne nous attend pas te ñun tardé nañ tardement ñu jël yoon ji Sénégal impunité mais imaginez-vous ay nit ñu fébar ñun covid bi la mhm. yoon sax leen wax bu ngeen j'ai des amis quand je leur serre la main mais ils me transmettent de l'énergie positive dont j'ai besoin pour la journée parce que man dem leen di ñu mais ñooñ dañu mën ne bu leen leen nuyooti gardez vos distances toog leen Sénégalais yi nga xamante ne dañu doon liggéey guddi ñu ne leen mënatoo leen liggéey parce que am na couvre feu ñu nekk ci restaurant restaurant bi ci guddi ñi nekk ci bar yi ñi nekk ci night club yi garni garni et cetera et mm-hmm. fekkee ngeen sénégalais yi dajale seen xaalis malgré le contexte difficile jox ko nguur pour jàppale ko ci li ñëpp bokk pour ñu songandoo ko daan ko heureusement ba histoire dafa position courageuse jotee na nga ko jël même bu nekkee da nga ci minoritaire président Sonko bu mu demee dafa ne euh, président Macky Sall xaalis bu ñuy dajale bu mu doon loo xamante ne tamit ëllëg dañ ciy déggaat ay détournement il aurait pu araftu carrément ay nitam mais nit ñi feebar nañu ñaata nit ñoo dee parce que manqué nañu oxygène ñaata nit ñoo dee parce que manqué nañu lal boo xamante ne dañu leen ci jël hôpital ñaata nit ñoo dee parce que fu ñu Covid yu fekk mën ñu am assistance respiratoire bu bu baax ñu ne la ay nit ci contexte boobu sàcc nañu 26 milliards ñu ne dara du leen ci fekk bu pensez qu'un pays qui veut se développer bu bëgg bu bëgg a euh, suqaliku mën na wéy ci ku ne foo nekk mën nga jël li ñëpp bokk di ko yóbbu sa kër di defar sa ah, sa njaboot di defar sa ëllëg après ñu ci des di dee parce que mënuñoo faju correctement donc je fais une petite incursion par rapport à la prison mm. damay sant yàlla d'ailleurs ci ni ma yóbboo kaso ah bon wallahi azim parce que man dama jàpp ne yàlla moo ma yóbbu kaso Macky Sall makisal ma kaso yàlla daf ko nattu rek jaarale ko ci moom mu mën tooñ <laughs> am tamit lu ko metti mu jàpp na noonu la ko mën a faje yàlla muur ay bëtam eh. mu defal ñu xéewal Macky parce que ab ji boo ko suulee ci nawet doo ko yàq te loolu lañ ñu defal di sant yàlla bu baax a baax mais bu ma demul woon kaso du ma xam ne am na sénégalais yoo xam ne seen bëñ bu dee metti dañuy dem ba ca wetu commissariat de police mel na ñuy sàcc sàcc lu batterie wu commandant bi wala ñu lijjanti yamba gu ñu tux mu xeeñ euh, policiers yi ñu jàpp leen. ah oui xam nga pour lan. Mm-hmm. pour bu ñu leen yoboo kaso ñu mën a am lu ñu faju te lool su ma demul woon <laughs> kaso du ko xam. donc on en est arrivé à ça donc loolu mënon ko gis ci dëkk dekk ba paré mais après ay nit ño xamante dañu dañoo tout lenn li parce que man dama am problème tout le temps pour comprendre yene accumulation pour lan la. Mhm. lan la nit soxla. yene am-am yu bari waaw lan lan la nit soxla yene alal yi. Mhm. pour xaar temps bi mu fi wara a def diggante bu mu juddoo ba xamé bay xam sax lan moy banexu xaliss cest à à partir de foofu ak bi yàlla di woowu te xamul kañ la mu soxla di di luubal di luubal di accumuler ba boo ko laajee li yëpp loo ko soxla sax mm-hmm. du la mën a jox réponse bu bu bu satisfaisante <laughs> mais bu doon loolu kese la seen rapport par rapport ak seen propre euh, euh, référence axiologique ak éthique ak leneen ñoom kese ñu bàyyi leen sax mais quand bu dee impacté nag négativement mm-hmm. di ñu coûter en désespoir des jeunes. 8000 jeunes sont morts sur les routes de l'immigration selon l'Organisation internationale pour l'immigration. Mais je crois qu'un État sérieux, corruption, détournement de deniers publics, aucun pays ne se développe quand ces phénomènes-là sont endémiques. Alors, il y a, y a une accumulation de, richesses, justement, parlons-en. Euh, dañu gis ne bi une prison, euh, prison yow ak euh, Ousmane Sonko dès que ngeen commencé jël parole fi ngeen c'est euh, wax mooy ci euh, le candidat de Bernard Il a commencé di wax ci euh, liñ koy accuser ne dafa c'est un fonctionnaire milliardaire dem sax bay wax ne na def déclaration de patrimoine comme yow ni nga waxee ko def prison rek dès vos première prise de parole ngeen ne aywa Amadou Ba yoon baa ngoog ñi non campagne un moment de débat. Mhm. boo euh, ci ëllëgu réew mi dafa am thématique yoo xam ne dañ ko war a teg ci table bi ñu waxtaanee ko sénégalais yi xam balaa ñuy tànn hmm. du du question de moom candidat Benno Bokk Yaakaar te naa ko leeral léegi mais question de yan thématique hmm. lañ war a jël ak naka lañ koy illustrer hmm. bii gi gars yi di wax sax boobu génn guñu ci réforme institutionnelle lañ doon wax à savoir le poste de vice-président ñu jege foofu attaqué waat notre option de souveraineté monétaire ensuite ñu andi waat la question de l'éthique dans la gestion des affaires publiques yàlla def nag seen candidat mm-hmm. ñoom ci seen bopp nuñ ko xamee ak ñun nuñ ko xamee ci moom mu yàlla def mu doon koo xamante ne du kuy jub du kuy jubal te mënul jubanti Sénégal te loolu la Sénégal soxla parce que ma waatal leen ko wallahi azim mm-hmm. laaj leen sama entourage ñi ma ci jot a waxal am na ñi ci toog nii ma jàkkaarloo ñoom di leen gis dama mosa wax ne fu ma nekk Amadou Ba bu nekkoon candidat Macky Sall nekk candidat wallahi azim man Macky Sall lay jàppale battre campagne pour moom <laughs> votel et pourquoi loolu parce que Macky Sall a le courage de ses de un mën nga bañ a d'accord ak moom mën na defi njombe lool mais bu koy def da koy day jàkkaarloog yow def ko un deuxièmement man li ma xam ci Amadou xaw ma ko ci Macky parce que ma Macky bokkuñu administration mm-hmm. après bu mu nekkee président laa ko xam te jàpp naa ne am na lu mu jàngat ci ay erreur ci bu mu fi jaaree Amadou mm-hmm. dañoo nekk de domaine boog ma sax wax dëgg yàlla attardé wu ci moom rek mais pour ngeen ah, en c'est ñu jël ko mm-hmm. comme exemple parce que mën nga bëgg a wax ci euh, set ak sellal ci yorin mu am kenn koo xamante ne mu ngi laaj ñu war a wax sénégalais yi ak ñun até leen ñu ci li hmm. lool motax mané ma man damay def sama déclaration de patrimoine bima ma kasso sax la ko bind ma won ko professeur Cheikh Omar Diagne ma ko man dama fas yéene su ma candidature bi jallé ma def sama déclaration parce que man awmu lumay neub hmm. té lima ma fi am yëpp ke nit yéena ma ko upaa luma ma lew la mune ma budé dee ni ko constitution bi waxé article 37 hmm. que le président nouvellement élu dafa wara def déclaration de patrimoine ñu teg ci ne conseil constitutionnel da koy rendre public. Mhm. kon ça signifie que nit ñi soxla nañu xam président ñaata la am ak buy génn ñaata la am pour ñu xam ci diggante bu mu yoree lan la def. lan la fi yokk mais li nit ñi gën a soxla. Mhm. mooy ñi yoroon des emplois et des fonctions publiques. toog nag ba bëgg a ba bëgg jël réew mi. mais ñun kay ñooñu soxla nañu xam balaa ñuy dug lan lañu ñu am. Mhm. ñu xam ndax emploi public war na leen mën a mën a jox. est-ce que mënuñu ko constitutionnaliser benn yoon. non c'est constitutionnalisé. bokk ci document. mais yi ngay xam ne moom ngay ce serait formidable. ce serait formidable parce que ku toog sa kër di def sa yëfi bopp xëy na tànk laalul ñenn yi sa yëfu bopp la bu dee yow da ngaa wàcc yoon responsabilité ci ñiy doxal yoon yoon tegu sa kaw. mais bo commencé na nak kay len def ma imam mm-hmm. wa dekk bi am nañ droit laj la ndax mokal nga fatia ndax mokal nga yenen sar wala lo xam mm-hmm. te xam ngeen ne pour tek imam sax dinañ wessu jangam ci alxuraan dugg ci dundam ko hisab mm-hmm. ko mais imam mais dama japp ne ci dekk bo xamantene ne ay catholique nga fa ay ñi gëmul nga fa ay animiste fa gëm nañ sax mais dañu gëm leneen ay animiste fa nga ay ay ay julita nga fa ay ay juif nga fa mais président boobu mooy imaamu imaam yi. Mhm. kon nu ñuy tànnee imaam noonu la ñu war a tànnee président de la république. boo demee ba ne bu buñ ko tegoon teg Macky Sall ñoom ñaar ñu war a xëccoo da ngay préféré woteel Macky Sall sénégalais yi lay seetaan bokk ci sa sa parti d'ailleurs tout ce qu'ils ont vécu avec Macky Sall ces trois dernières années soo leen waxee loolu dañ naan mais quelque part xëy na da xam lu garaaw a garaaw ci waa ji li tax waa kii kii tout ce qu'on a vécu. Mhm. on l'a déjà vécu. oui pour moi, li am solo. loolu ay leçon rek lañ tirer. Mhm. pour éviter suñu bopp les mêmes erreurs. éviter ko ñeneen tamit. loolu moo tax d'ailleurs nous bañoon voté la loi c'est parce que ne doit pas y avoir de trou noir dans l'histoire du Sénégal. parce que c'est de nos erreurs qu'on doit tirer euh, la, le fondement des succès à venir. Mhm. mais li tax ma donner jël exemple Je dama gis. vous ma même en 2012. am na ko doon reproché lu tax kiiwu ma ko votalu ma ko dama ne koo xamante ne day forcé bureau de vote buñ ko joxee réew doole la ñuy jaay <laughs> loolu waxoon koo xamante ne ak leen bëri mais yeewoon naa ñooñ tamit ci lu bëri mais koo xamante ne Moustapha imaginel nga nekkoon nga nekk Walfadjri Pierre Edouard yow ñu war def directeur mhm. Cheikh Niass ne dafay defar enquête de moralité defar sa enquête de moralité Pierre xamné hmm. yow yelo nga poste bi sa enquête de moralité c'est nickel sa compétence ken waxatu ko hmm. sa sa sa sa sa sa sa éthique ken waxatu ko sa professionnalisme ken waxatu ko ñu xam dal fu ñu mën di jaar ñi hmm. Moustapha mom dina ko nek té ñu por nañ ko ko nangul mais état dafa def enquête de moralité état def enquête de moralité Pierre Edouard fexé ba saboté enquête de moralité bi dugal la foo xamante ne waaye tax buñ ko gisee dana musiba naaru laay kii ndekete xamuñu woon lool ci li ci moom dans sa vie privée mu tax nga ñàkk enquête de moralité boobu hmm. parce que poste boobu man loolu su ko nit defee mënuma ko jox réew loolu ko vivre ak Ba non du man personnellement mais moom am na kenn ku mu ko def te bu ngeen laajee les anciens des impôts nañ leen wax ne moo ko def diw God damn, waaw ah, Choumi TV mi ngi leen di nuyu Choumi TV mi ngi leen nuyu di leen bëggee di leen ñaanal jàmm ak salaam j'espère que ni vidéo bi fekk na ñëpp di jàmm. mais kon naa encore une fois di leen rappale ñi nga xamante ni ñu ngi doon abonné Choumi mi ngi leen wax rek ñu leen welcome back to the channel. yéen a gën xam mun naa ni comme rek ñu ngi koy faral chaque fois. waaw yéen ñëpp sama gars yi dégg ngeen déclaration bi. you know journaliste yi ko doon poser question bi lii mooy rôle journaliste quoi journaliste boo toogee la Sénégalais ñu lay déglu mu fekkente ne da nga toog kilifa surtout nag kilifa boo xamante ne réew dañ koo yaakaar pour mu jiite leen sincèrement ñun Sénégalais dañu bëggoon a xam li nekk ci ginnaaw boppam. boo toogee nga koy poser question yoo xamante ne sont vraiment pertinentes mais sincèrement nag Choumi TV maa ngi félicité ñaari journaliste Walfadjri sincèrement vous avez posé des questions vraiment importantes. yéen ñëpp sama gars yi déggal ngeen seen bopp. you know sincèrement li ngeen dégg nii nag moom bu leen doyul man su mi ma lan moo leen doy sincèrement man dama gis ni l'état d'esprit bi nga xamante ne moom la Ousmane Sonko ak Diomaye Faye yor sama gars yi non gisuma ko ci benn politicien au Sénégal quoi waaw je le dis pas tout simplement parce que je suis sonkis mais dama koy wax ak sama diggante ak yàlla rek quoi yàgg naa déglu politicien ñuy waxtaan mais sincèrement li ma dégg ci làmmiñu Sonko ak li ma dégg ci làmmiñu Diomaye Faye non dégguma ko ci benn candidat buy présenté wu ci élection yi dégguma kenn ci ñoom ku mu génne sa gémmiñ Choumi TV nag bëggoon wax na ne sama gaay ñun les senegale dafa jot quoi ñu teg ci nguur gi jeune boo xamante ni dinañ mën a jox luñ soxla depuis 1960 ba léegi su fekkee mën ngeen selu sama gaay di ngeen gis ni ay mag ñoo ñu jiite ay magum jëmm yoo xam tamit dem nañ ba bijaaw su fekkoon ne sax bijaaw bi yàlla def ci ñoom ñoom nangu nañ ko assumer bu boobaa amul problème mais que ça soit muy Macky Sall que ça muy dégg nga kii fi jóge nu mu tëddee le président Abdou Diouf ba ci kii nga xamante ne mi ngi waaja a laaj réew mi di Amadou Ba ñoom ñëpp sunu borom dafa am lu mu leen teg ñu ne d'accord duñ ci sunu borom daf leen a teral may leen ñu dund plus de soixante et quelques années ñëpp xam nañ sama gaay nit ki. so dundé plus de 60 ans c'est normal bi bijaaw génn jëw bi jaw moom du gatché bi jaw sante yalla la mais ay magum jëm dépassé sen seen bi jaw ba weex tal di ñuulal sen bop yi. dama bëgg sama gaay ngeen gënal ba benn photo Macky Sall wala benn photo Amadou Ba bo xamanteni gis ngeen bi jaw sen bop yi Macky Sall du xalé Macky Sall 63 lu judd xaw ma 64. le président Amadou Ba suma ma mi ngi dudd en 61 kon mo magay Macky Sall ñetti du ñu ay gone ay magum jëmm lañu dama bëgg sama gaa ngeen xam ni ñun les sénégalais dañu sonn ci ay ay ñu jiite ñu dañu sonn ci ay magum jëmm yu bi jaaw duñ jiite ñun les sénégalais on a besoin d'un président jeune te sincèrement ñi fi présenté wu ñëpp no bu dee yàlla dëgg rek la bëgg gisuma ko gën a féete xaw gisuma ko gën a xale kii Diomaye Faye mi gisuma ko ci li nekk ci boppam bi nekkul ci boppam ay màgget gisuma ko kenn si ñoom deuxième point bi mu bëgg souligner gis naa ne def na ay jours boobu ak léegi ñu ci bëri ci sénégalais particulièrement ku ci mel ni Lat Diop yéen ñëpp gis ngeen ko sama gaay mu génn di ko xas mu génn di xas morphologie Diomaye Faye naan ay Diomaye fay n'est même pas présentable pour dugg ci pale bi ndax ni koy àll bindee. yéen ñëpp ci vidéo boobu aussi dégg ngeen ko mu ne yéen les sénégalais est-ce que mën ngeen imaginer Diomaye fay bu taxaw président Macron taxaw président Joe ren taxaw yéen ñëpp dégg ngeen ko muy wax mel ni ku koy jéem a mokke ci ni ko yàlla bindee mais moom lu mu bon bon lu mu bon bon moom boo jàkkaarloo xool ko sax di nga xam ne kii niroowul ak jigéen mais Lat Diop ngir yàlla xool leen foto Lat Diop barki démb mu wooyee booy jeunes yi biir géejawaay mooy bañ koy humilier mu sol yére bu tafu ci yaram bi ngeen gis góor boo xamante ne yow nee nga góor nga ba pare sa yii nii di lang maanaam say wen di lang nga mel ni jigéen moom lu mu bon bon Ousmane Sonko moo gën a jantal lu mu bon bon Diomaye Faye moo gën a jantal ndax ñoom ñaar doo leen xool di leen jaawale jigéen ñun lay sénégalais sama gaay ñun dañu sonn ci njiitu réew yu pata njiitu réew yu diri ay biir ak ay lex di guuxi lex ñun dañ ci sonn dama bëgg ngeen xam ne sama gaay ñun nit ñi ñun dañu war a bàyyi complexe bi quoi di complexe ci kanamu tubaab yi. kan mooy Macron kan mooy Joe Biden on s'en fout ci Macron suñu yoon nekkul ci ay Joba ren ñu toog bëgguñoo ñoo gëmloo naan ñu ay il n'est pas présentable yéen a présentable yéen. waaye dimbali leen ñu ngeen may ñu jàmm waaye yéen jeunesse bi nag yéenay décidé de yéen yéenay décidé mais pas pas yu màgget yi. Sénégal mun naa boo ci génnee jeunesse bi doo ci gis keneen kuy voté yéen jeunesse bi yéen a fippu yéen jeunesse bi yéen a souffrir ana pas mal d'années yéen a manqué espoir bay dugg ci gaal gi. Choumi TV nag dama leen bëggoon xamal ne sama gaay dafa jot ngeen téye seen réew. billaay wallaay taalaay laa leen wax gisoo leen fi kenn ku gën a jekk jiite réew mi jomaay fay mii man gisuma ko. gisuma fi aucun bu ko gën a intelligent pour jiite réew mi. deuxième bi sama gaay yi yéen ñëpp xam ngeen ni Diomaye Faye bu duggee ci pale bi day jël Ousmane Sonko teg ko ci wetam. ñun les sénégalais yi ñun ñëpp xam nañ sama gaay yi politiciens yi Ousmane Sonko rek la ñu ragal ñemewuñu exprimer mais imagine leen Diomaye Faye jël Ousmane Sonko def ko un premier ministre mais saa waay boobu kenn mënu ko contrôler barki rasulilaay Sonko bu toog wetu Diomaye Faye doon un premier ministre non loolu leneen la <laughs> su midi bëgg leen rappeler leen sama gars li ci des bëreetul li des bëreetul sama gars yi dama buggoon ngeen jël photo waaj ngeen def ko ci enveloppe bi mu génn premier tour Nous, les sénégalais le président Amourouba, sous su 15 de cent si on pour une ko tegee si yoon bu fekkente non le président Amourouba, nous mënul plus de 15 en Sénégal c'est impossible. Choumi TV di leen ko rappeler sama gars Né ne leen avenir moo en mai sincèrement sama c'était un combat à xamante depuis très très longtemps ñu depuis 1960 ñu ngi xeex Puis, ji bii mooy benn sànni tàcc bu nga sànni tàcc bii ñu def sama gaay bis bu ñu sàgganee ba mu rëccuñu non bu yaboo rek ku nekk si ñu rek jéem a xool loo defi quoi bu yaboo ku nekk si ñun jéem a xool loo defi te xam ni réewum Sénégal moom moom mi ngi ci loxoy France loolu moom na leen wóor. Choumi TV bi daal sama gaay dama génn rek pour indi leen vidéo bi eh, sincèrement sama gaay dafa jot ngeen bañ rek di déglu nii di wax mais ngeen déglu Diomaye Faye ci boppam en tant que nit koo xamante ni bëgg ngeen ko dénk seen réew yéen ñëpp gis ngeen ko sama gars yi sincèrement dafa tontu question ko posé yëpp daf ko tontu te lii mu tontu nag képp ku mu doyul noo man su mi góoma ni di nga am leen loo doy ko quoi sincèrement jël leen seen carte électeur sama gars yi ngeen jox ko borom sikkim bi bu leen ko mës a jaawale nag borom sikkim bi mooy bu baax bi jël leen ko ngeen def enveloppe bi Choumi TV mu ngi leen di bëggee di leen ñaanal jàmm ak wala là jadid la Non, son